aca ga abi sifle na final poids léger diggante Babou Sarr nga ko ak Jammeh Djilanka Jammeh Djilanka lañ jaakaar lool Babou Sarr ko Mame bi moom ñu woon gannaaw moo nekk à domicile ndeysaan final poids léger mekke na Diofior di bëggee sama caméraman Mozo bu benn boy le grand champion depuis Espagne maa ngi koy bëggee moom benn boy di bëggee mafia bi waa Espagne sama grand seegu baab maa ngi koy bëggee bu baax a baax waaye kenn du Falang Sarr di bëggee sama boy nekk Espagne ñoom Brigadier ñoom Sappe ñoom Jibe ñoom Zal Ndiaye ñoom Noa ñoom Pulo ñoom Ado waaye di bëggee sama dëkk waa Palmarin Babou Zak sol na ko naare Babou Sarr jàmm ji lank ndeysaan gaay bu leen fàtte suñu làmb ji le 18 novembre incha allah fale jàppal ma ngay ngal ñu tëgal mbëggeel nag ak 35000 animation Mbayang Loum lay doon ak Hamad Baboucar ndeysaan yi bés boobu aussi ñu wax c'est décoré le grand champion Babylone ak le grand champion Alizé Babou Sarr Diamé Dji Lanka final poids léger sama grand Landing Sarr la sunam bëgg naa ko bëggam Toubacouta bëggam Ndiombato ndeysaan di bëgg waa Parcelles waa unité 18 sama grand sama nijaay Demba ñu gën ko xam ci Sibiam ñoom Yann Nico ñoom bienvenue ñoom Edou Njibor ñoom Cédric ndeysaan sama nijaay Njëgaan maa ngi koy bëggee bu baax a baax Babou ak jam babu Zane sol nako babu Babou jam bi lan ko he he ja Babou Zane jambi li nga ko jam bi na ka japp na mu koy dajale wala mu koy wetu jam bi lan ka ndengeñ nyako jam bi lan ka ko nyako jam bi lan ka babu ko Udah menjelang ke bawah besar. Eh, eh. Bawah besar jam menjelang ke... Eh, jam menjelang ke dana bawah besar. Jam menjelang ke dana bawah besar.